gouvernement kenn du ko jugé ci cinq mois six mois même un an même deux ans doo ko ci jugé waaye nag da ngay xam fi mu jëm tey su ma la nee soxna Fatou nañ dem Ndar ñu dugg ci oto bi ñu egg ba jam ñaajo ma jël à droite war nga mën a ci fii lu yoon wi ndax foofu kër mbuur nga jëm bu dee di nga egg Ndar di nga di nga di nga di nga di dinga di nga yeex egg donc benn bu dee ni mënuñu leen mënuñu leen jugé hmm. ci ay résultats orientation bi ñu jël ak yenn décision yu ñu jël parce que bul fàtte xam nga li gën a bon mooy dig nit ci loo nga xam dañu jàpp ni lu teew la parce que l'actuel premier su ma sët daf daan wax ni bu ngeen ñu falee ñaari weer ñaari weer def nii di ngeen sentir ni réew mi changé na kon bu ñu leen falee juróom benn weer ña doon à topp ci seen ginnaaw di daw muy marchand ambulant yi ñu jàpp dàq tablier yi ñu dàq magistrats yi ñu dal ci seen kaw yeneen corps yoo nga xam ne duma ma leen tudd dans les débats politiques presse bi ñu ñaasante presse bi ñu faagaagal leen ainsi de suite ngay gis ay vidéo je cite deux exemples Fatick et Kolda ay xale yuy xeex ci xaalis bu ñu leen jox ñu doon ko séddoo nga xam loolu la ñu doon loolu la ñu doon reproché nga gis ministre bu ñu tuumaal directeur général am génne lettre ni moom moo bind lettre bi ni mën naa def gré à gré te loolu lii lay jur Cheikh Dieng am na dëgg am na ndam parce que la mu waxoon ni buñ ko deful inondation dana am moo am mm-hmm. gis nañ li am Touba. gis nañ li am Touba te la mu waxoon bu ko defoon li am Touba du am kon la nga waxoon nit bu fekkee ni contraire ba rek la ñuy gis ay li lu la nit bëgg bëgg bëgg dina ne ah man de kii wax dëgg yàlla la ma yaakaaroon ci moom ak lam ma woon gisu rawatina ñoom ci seen bopp ñoo lay wax tey ni dëkk kenn mënu ko changer ci benn at mënu ko changer ci benn mandat mais waxoon waroon nga li ko wax bu njëkk boo leen ko waxoon ci njaal bi ku ci ànd ak yow ànd ci ak yow mais soo leen gëmloo ni soo ma joxee pouvoir bi deux mois après di ngeen gis ni dana changer xale yu bari yaakaaroon nañu ni bu ñu jëlee pouvoir bi immédiatement après dañuy daal di dañuy dañuy daal di euh, si dundu ko dundu day changer loolu yëpp dara abu ci nécessairement ñu continuer di jël géej gi. dafa raw tey dafa yokk tey. donc loolu yëpp. mun man am na am na ku ma ci fekkoon buntu kër Ousmane Sonko li ma waxoon au lendemain de la libération daf ne ma bu Sonko Diomaye gañewul damay jël gaal yi. bu gañewul waaw mu ne ma mais buñ gañee damay toog ça veut que kooku ci ñi amoon yaakaar ne bu ñu faloo mu. soppeeku ci la. war nañu ko lenn loo nga xam bu fa jaaree war na mën a jëm kanam kooku nu muy def. donc nécessairement raison yooyu yëpp boo ko ak yeneen ak yeneen yoo nga xam kenn mënu ko tudd sax boo ko euh, seetee yooyu yëpp na ni nekk nañu en réew nag dañ koy waxtaan waxtaanee boole na ci ma dolli ci boobu parce que c'est une question éminemment politique. Mm-hmm. ña leen doon jàppale. ba ñu ànd ba dem au au pouvoir. <laughs> ñu leen boo gaañi bàyyi bàyyi. teg nañ échelle bi ak ko defee. voilà ni ñu ko defee teg nañ échelle bi yéeg ba. egg ci kaw ñooñu moom ils sont ñu ne ku nekk xam. ne boo ko dajalee ah difficulté la xëy na nag ñoom xam nañ nu ñu def ba lijjanti ko mais man xaw ma nañ koy lijjanti. opposition bi mi ngi ci ay jeux d'alliance gis nañu PDS ak APR ànd foofu tam sa ancien kër tam ba ngay toj ndax eh, ñoom Dodo Wade ak ñeneen jàpp nañu ne eh, seen bureau ñu mun a ànd ak moom tey yenn jeu d'alliance yi tam est-ce que du ñoom lay indil problème opposition ba faagaagal leen ànd pour ànd nii rek eh, ba mu jural la leneen. waaw xam nga xam nga PDS moom loolu mooy dëgg gi tey hmm. ñaari PDS am ndax boo rangale woon ñi ànd ak APR tey ñu taxaw. nga rangale ñi contre ànd beeg APR woo sénégalais ni leen ana PDS ñi contre ànd bi lañ lay wax ne ñooy PDS. Mm. ndax foo dem fekk fa Doudou Wade. fekk fa Woré Sarr fekk fa Tafsir Thioye fekk fa Pape Saer Gueye fekk fa Djibril Wade mm. ak ñeneen ak ñeneen fekk fa Ndiaga Diaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam mënoo leen lim te fii wax dëgg yàlla ni ma lime nii mm-hmm. man mënuma ko lime nii parce que fee bu fa dul Lamine Thiam defe naa mënuma ci lim keneen euh, ki nekk seen xaw ma coordonnateur la xaw ma secrétaire adjoint je ne sais benn yoon laa ko mës a bët te dëju Ablaye fay la woon kon euh, bu ñuy wax légitimité légitimité dëgg-dëgg ñii ñàkk ànd ak APR ñoom ñoo am légitimité bi ñi ma ca xamit xam naa ne am nañ base bu dëgër ñële nag mënu ma leen di juger parce que koo xamul mënoo ko juger mais ñii ma xam moom bari na ci ñoom ñoo xam am nañ base bu dëgër tant au plan national qu'au plan international. Mm. ba seen départ ku ñu wan ginnaaw di nga ko sentir fu ñu ànd it ñooñu dañuy xam ne am na ñu ànd ak ñoom. d'accord ku mel ne Serigne Moustapha dégg nga kàddu yu mu yëkkati dernièrement ci gàmmu gi moom itam mel na ni Ousmane ko ñàkk na ko. donte ah. bàyyi na benn prox ndollu ndax nee na jomaay ko ci jaaxal. waaw mais mais mais prox ndollu kay amatu fi. Mm. parce que ñi ngi dem ci investi ci élection. waaye sàmm sa kàddu lañ taxawal. jeex na. kon kay foofu moom sëy ba tas na xanaa baara sëw ji moo fi tas <laughs> waaye sëy ba moom tas na. <laughs> foofu moom sëy amatu fa moom te te euh, sëñ Moustapha ak loo ci mën dégg il une machine électorale. loo nga xam ne bu nee waaw fii la foofu lañ jëm bu nee fii la foofu lañ jëm loolu lañ ñu ko am ci réew mi moo bariwut ñoom am nañ ko PDS amoon na ko loo nga xam ni benn stock la bu bu tege fu ñu la ni fii la rek. Mm-hmm. foofu la jëm ñoom amul amul kii mais malheureusement. moom ce qui dafa maîtriser ay nitam. doo fi maîtriser waaw maîtriser ni gëm nañu ko. Mm-hmm. kilifa diine la responsable moral la. absolument donc bu leen nii foofu la foofu la jëm te sëy boobu comme sëy ba tas na euh, ça va faire mal également mm-hmm. chose au pouvoir mais opposition bi ni ma ko waxee léegi am na ci ñoo xam ne am nañ problème est-ce que mun nañu xaar peut-être. Euh, comme résultat une cohabitation comme ni ñu ko amee woon wala presque cohabitation. ah man depuis depuis conférence de presse bi ma def yaa trois mois defoon ko couvrir ngeen ko. oui j'avais dit pour la première fois ñu ngi jëm ci cohabitation au Sénégal mooy suma yéene mooy sama bëgg-bëgg. Mm. te moom la euh, dama defee ni euh, Sénégal du lu ma defee sax lu ma biir la. ok Sénégal yàlla bëgg nañu. Mm. ndax bu dee ni dañu am raison yu bëri yoo nga xam taxan ba ñu fal benn pouvoir. pouvoir ba ñu bëri bokk seen yaakaar commencé di ci tas ñu bëri xamuñu fuñ jëm un pays qui est c'est ça la vérité li Moussa Ka doon wax bu muy woy xarnu bi naan ñi doon mayee ngi sakkanal mm-hmm. ah ñi doon joxe ngi nëbbu réew mi dafa toll foofu tey te boo xoolee di nga xam di ko waral ndax ni ma ko waxee léegi ki daan xëy di teg taabalam di jaay buñ ko ne bu ko fi tegati mm-hmm. chantier yi nga xam da doon dox ñuy tabax mason bi wul entrepreneur bi day dem ci magasin bi jënd fa ciment jënd fer jënd leneen ak leneen. Mm-hmm. xaalis bi circulé xale yi xëy liggéey nekk ay ay manœuvre bu ngoon jotee ñu fay la mille 4000 mille boo demee bàyyi 2000 francs yi sa kër boo wala 3000 francs sa kër boo xëyee liggéeyi waat. Mm-hmm. loola amatoo ko parce que les chantiers sont arrêtés mu yokk agression yi daj ci mbedd yi. Mm-hmm. yooyu yëpp boo ko boo boo ko dajalee di nga xam lan moo tax réew mi nekk en difficulté donc réew moom nga gis le Fonds monétaire ñëw fi wax ni réew mi doxatu. te six mois yi gis naa sax gis naa sax euh, l' ancien premier ministre def ci benn sortie boo nga xam c' est regrettable parce que on ne peut pas xam nga sa sa confrère euh, euh, Patrice Ngema Fabrice Ngema dafa mësa ñëw benn conférence de presse au palais bu ma doon def mu bu jël parole ni ma vraiment monsieur le ministre vous n'êtes pas l'avocat du diable, mais vous êtes le diable de l'avocat. <laughs> Parce que vous avez réponse à tout. Donc, on ne peut pas être l'avocat du diable. mënuloo Fonds monétaire ñëw fi bind ñëpp liir ko ni trois mois yii bi fi Macky Sall di dem tout était ouvert mu dellu si ni tout est nga bëgg ni gestion Macky Sall la ñuy la ñuy sanctionné am ñoo xam sax c'est ridicule parce que même ñi nga koy waxal ñoom boo leen laajoon duñ ko wax ñi ngay défendre boo leen laajoon xëy ne mën na la jox yeneen raison mën nañ la ni situation réew mi li ñu fi fekk yaakaaruñ ko woon mën nañ mën nañ joxe mille raisons mais loolu ñu la ko wax donc bu réew demee ba egg situation bu mel noonu ça devient extrêmement difficile naka la ñuy def pour génn ci parce que loolu mooy moo war a mooy li ñu war a lijjanti mais monsieur le ministre euh, nangu nga ne situation bi ñu fi fekk mën na expliquer loolu wala yow da am yeneen explication ci ah